wala sos dara ci lislaam loo xam ne lu ñaaw la buñ ne sos dara ci lislaam nag mooy day fekk la ngay sos ci lislaam doon loo xam ne buñ ko toppee dina am fuñ ko mën a sukkandikoo ci lislaam ba ne lii lu rafet la ci lislaam waaye lépp loo xam ne dañ koo sos ci lislaam te amul benn wàccuwaay ci alquran ak sunna loola daal lay tudd mooy bunt bi ñu weesu woon sànq bunt buñ njëkkoon a weesu bi topp ci bunt bi kon bi day xam ne loo xam ne luñ sos la ci lislaam waaye doon loo xam ne itam ca lislaam la bokk xay na nit ñi dañ ko fàtte woon wala dañ koo xamul woon wala sax ñu xool ko gis ko am kum fuñ fuñ mën a sukkandiku ci xadis ak alquran hmm. sunu borom subhanahu wa ba muy wax ak waa dafa wax ne walladina yaquluuna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatin wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama mu ne ñoom bokkoon na ci seeni ñaan dañ daan wax ne suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ñu may ci suñuy soxna ak suñuy doom ak suñuy sët xol bu sedd da def ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñuy ci ñun ñoo xam ne ñu ragal yàlla lañ tegu ci yoonu njub ba ragal yàlla sax di roy ci ñoom roy googee ñuy roy ci ñoom di di jëf seeni jëf naka noon seen tiyaaba itam da leen da leen suñu borom da leen koy fay ñoom ak ba mu waxee itam ne wa jaalnaahum aimmatan yahduun bi amrina suñ borom ñooñ mu doon waxal dañoo doon ñoo xam ne dañ daan muñ ci ay musiba waaye daan muñ itam ci li leen suñ borom teg te muy lu tiis nee na suñ borom def leen nag ñu mujj doon ay njiit yoo xam ne dañuy gindee di jëmale ci yoon sunu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne kon roy na leen ci muñ googee ñu doon muñ tiis yooyu ak natt yooyu sunu borom doon leen teg kon ñoom it lala sunu borom subhanahu wa taala di fay ñoomit it dañu cay am. jële nañ ci abi amrin jarir ibni abdillah radiallahu taala anhu mu ne ñu nag yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam masoon nañoo toog ci benn bëccëg nee na bi ñu toogee am ay nit ñoo xam ne ñi ngi bokk ci waa Mudar nee na ñi ngi sol lu mel ne yére yi der yoo xam ne kenn ñëwu ko dañ koo kuppati baat dañoo kuppati baat bi rek ràngoo ko noonu nee na gàddu nag seeni jësi ñëw toog ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ngir xaar xare jot bañ dem mën xare ji bi leen yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam gisee nee na kanamam xonq lool ngir am ñewante ak gis ñii nga xam ne ñu ñu ñu yayoo ndimbal la ak ñàkk gi ñu ñàkk te kenn dimbaliwu leen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisee ak yërmande ja daal di dugg ci biir xëy na daf doon jàpp bi mu génnaatee daal di wax Bilaal ne ko noddal mu nodd yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daal di julli daal di xutba nit ñi daal di jàng aay bi nga xam ne moo njëkk ci suratu nisa te mooy yaa ayuhannaasu taq yaa ayuhannaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida ba ci inna allaha kaana aleykum raqiba daal di ciy tegaat beneen aaya te mooy yaa ayuha alladina aamanu taqu llaha wal tanzur nafsun maa qaddamat li gad ci suuratul xasr aaya bu njëkk bi suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dafay xamle nit ñi nañ ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan muy aadama ñun ñëpp ñoo bokk baay ak yaay ñun ñëpp ci aadama lañ bàyyi ko ah mu wattandi mu soññ leen itam ci ñu fonk mbokk ndax aay boobu itam day day soññee itam ci fonk mbokk ndax ëllëg suñu borom subhaanahu wa taala dañu koy laaj mu teg ci itam beneen aaya bi di su bi nga xam ne moo nekk ci suratul asr nga xam ne moom it yonente bi day soññee ne kenn ku nekk na ragal yàlla waaye te jéem a xool la muy jiital ëllëg nee bi waxee loolu nag daal di digle saraxe kenn ku nekk lum mën a saraxe rek na ko saraxe nee na am ñoo xam ne ñii ay dinaar lañ saraxe ñii ay dërëm ñii ay yére ñii ay pepp ñii tàndarma ba ci sax xaritu tàndarma nee na am benn waay joo xam ne nag moom dafa ñëw bokk ci waa ansaar nee na indi lu baree bare loo xam ne daanaka sax xaw ko attan nee na bi nga xamee ne nag sarax bi bari na lool bañ def ko ñaari jal jal bee ay lekk moo fa nekk jal bee ay yére yuñ mën a waaje moo fa nekk nee ma gis nag kanamu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom mi nettali hadis bi nee na ma gis kanamu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nag daal di tàmbalee leer ba mel ne wurus wuute ba muy door a gis ñee nee na bi nga xamee ne kanamam mel na noonu nag yonente bi sallallahu alayhi wa daal di wax ne man sanna fil islaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha min baadi min gayri an yanqusa min ujurihim shay mu ne képp koo xam ne sos na ci lislaam loo xam ne lu rafet la sunu borom subhanahu wa taala dana ko fay ab yoolam waaye dana ko fay itam yoolub képp koo xam ne toppandoo na ko ca roy na ko ca te du tax ab yoolam wàññu ko ñoom it seeni yool dara du ca wàññu ko mu tegaat ci itam ne waaye nag képp koo xam ne itam def na ci lislaam sos na ci lislaam wala yoonal na ci lislaam loo xam ne bàkkaar la wala lu ñaaw la képp koo xam ne roy na ko ca itam dana am bakar moom miko ko njëkk sos waaye tamit dana am bàkkaarub képp koo xam ne roy na ko ca loolee nga xam ne moom la sos ci lislaam te muy lu ñaaw xadis boobu muslim moo ko nettali kon gis nga foofu jëmm jooju nga xam ne jël na lu baree baree bare saraxe ko donte ñee saraxe nañ am liñ def am na solo waaye moom lam jël saraxe muy lu baree baree bari gis nga nit ñi tàmbale ko cee toppandoo moom i tàmbale indi lu bari ba sarax ba bari lool ba nekk ñaari jal lee ay yére lee ay ñam yuñ mën a lekk gis nga ña ca toppandoo ñoom ñëpp ñoom it du tee suñu borom dana ko fay yoolam waaye moom it ñoom ñoom ñi ko def itam suñu borom dana leen fay seenub yool te dara du wàññi ko ci seeni yool hmm. jële nañ ci ibnu mas'ud radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na amul benn bakkan boo xam ne rey nañ ko ci ak tooñ lu dul ne doomu aadama bii di qaabil dana ci am wàllam moom mi nga xam ne moo njëkk a nit ci kaw suuf kon ñu doon wax léegi bépp ñaawteef bu nit def ci kaw suuf sos ko képp ku la ca toppandoo rek xamal ne di nga am bàkkaar waaye képp ku la ca toppandoo itam bàkkaaram dina la fekk si yow tamit yow yow yow mi ko njëkk a def kon xaabil mi nga xam ne moo njëkk doomu aadama moom it képp ku rey nit ci kaw suuf rek ci ak tooñ bàkkaaram dana ko fekk moom it ca bàmmeelam ba ilaa yawmi diin moo tax nit ki buy sos kon na sos loo xam ne lu rafet la loo xam ne lislaam du ko ñaawlu tayit des na ko ca mën a royee te it képp ku ko ca roy sunu borom subhanahu wa taala dina ko fay ab yoolam. Hmm. kon buntu boobu foofu la yam ñu teg ci beneen bunt bi ci topp moom it guddul moom it day tegtale ci xamle aw yiw maanaam xamal sa mbokkum jullit aw yiw ak woo ko jëme ko ci ak njub tegtal sa mbokkum jullit aw yiw wala nga woo ko jëme ko ci aw njub ak njub wala ak réer sax boole ci lala ci sunu borom subhanahu wa taala di fay borom subhanahu wa taala dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waddu ila rabbika maanaam wooteel ci sa jëme jëme ci sa borom subhanahu wa taala ci suratul qasas mu waxaat ko itam ne uddu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawhisati al hasan hasana maanaam na nga woote jëme ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala waaye ànd kooku xarañe ak xikma waaye nag ta nga waare itam waare goo xam ne gu rafet lay doon hmm. mu tegaat ci itam ne wa taawanu alal birri wa taqwa dee leen dimbalante ci njekk ak ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala teg ci itam ne wal takun minkum ummatun yaduuna ilal xayri maanaam na am ci yéen ñoo xam ne ay ay nit la doon wala ay kuréel la ñu doon yoo xam ne wala aw xeet la ñu doon yoo xam ne dañuy woote di jëme nit ñi ci lu baax di leen tegtal lu baax di leen wax aw yiw loolu munta ñàkk ci jullit maanaam ñoo xam ne dañuy féetewoo di leeral nit ñi ak di soññ nit ñi ci xamal leen lu baax ak lu leen di jariñ hmm. jëlee nañ ci ibnu mas'ud radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa nee na wala abi mas'ud xoqba bokkut ak abdullahi ibnu mas'ud hmm. mu ne jëlee nañ ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa mu ne képp koo xam ne tegtal na aw yiw sa mbokkum jullit sunu borom subhanahu wa taala dina la fay ab yool waaye dina la fay itam yoolub kookee nga xam ne tegtal nga ko aw yiw ba mu def ko bu ko defee sunu borom subhanahu wa taala lam ko cay fay moom it dana la ca fay ndax yàq ko tegtal hadis muslim moo ko nettali ba tey jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu ne yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne woo na nit jëme ko ci ak njub nee na sunu borom subhanahu wa taala dina ko fay ab yool waaye dina ko fay itam yoolub képp koo xam ne itam topp na ko ca njub googee te it du wàññi dara ci seen yool mook xaddis bi ñu weesu woon sànq rek soreewuñ waaye képp koo xam ne itam woote na ci ak sànkute ak réer sunu boroom dana ko fay bàkkaaru boppam waaye dina ko fay itam bàkkaaru képp koo xam ne topp toppandoo na ko ca loole moom it soreewut ak xaddis bi njëkkoon a weesu léegi hmm. xaddis boobu ba tey muslim moo ko nettali ba tey ci abi abil abbas sahlu bnu saad radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama de ci yow ma xaybar masoon naa wax ne maa ngi waat ci sunu borom subhanahu wa taala ne raaya bii de dinaa ko jox koo xam ne wala bu subaa dinaa ko jox koo xam ne ci moom la sunu borom subhanahu wa taala di jaarale may ñu ngañaay ci xare bi te waa jooju de jëmm lay doon joo xam ne ju yàlla sopp la waaye jëmm lay joo xam ne ju sopp yàlla la waaye moom it day sopp yàlla yàlla sopp ko mu sopp yonent bi yonent bi sopp ko nee na bi mu waxee loolu nee na nit ñi fanaan nag di xalaat naan waaw kooku moom kan la war a doon bu subaa kan lañ war a jox raaya bi koo xam ne day sopp yàlla yàlla sopp ko mu sopp yonent bi yonent bi sopp ko ah kooku de ku mu war a doon nee bi nga xamee nit ñi xëy nañ nag nee na ñoom ñëpp kenn ku nekk di yaakaar yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam jox ko raaya bi nee na bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ayna aliyu ibni abi talib ana aliyu ibnu abi talib nee na ñu ne ah, moom de daa mel ne da doon jàmbat ay yuy metti xam naa dafa xaw a wànneen yonent bi daan ne nañ ko yabal mu ñëw nañ yonent bi yónnee ne nañ ko wooyu mu ñëw bi mu ñëwee yonent bi sallallahu taala alayhi daal di tifli ci ay bëtam daal di koy ñaanal bi mu ko ñaanalee rek mu daal di wér saase dara dalatu ko ci ay bëtam yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam jox ko raaya bi nee na Seydina Ali daan ne ko yow yonente bi ci lan laay xeex ñoom ndax damay xeex ak ñoom rek ba ñu mel ni ñu mel jébbalu nekk ay jullit di def li ñuy def wala yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko defal ndànk rek ba keroog ngay wàcc ci seeni ëtt la ngay njëkke nag mooy woo leen ci lislaam xamal leen taar lislaam ndax kat xare baax na lool waaye la gën nag mooy fexe ba waar leen bañ dugg ci lislaam te xeex du am waaye bu xeex mën ta ñàkk nag ñu xeex waaye nag jiitalal loolu ba noppi te nga xamal leen li nga xam ne moo leen war seen digganteek seen borom daan ne ko fa wallahi la ay yahdiya allahu bi ko rajulan wahidan xayrun laka min umri na maa ngi giñ ci yàlla ne sunu borom subhanahu wa taala gindee kenn rek ci yow moo gën fuuf adduna ak li gën a foor ci adduna min umra naam dañuy wax ne mooy tànnee fi jur gi waaye mën nañ ko firee noonu rek adduna ak li gën a foor ci adduna suñ borom gindee benn nit ci sa jëmm rek looloo ko gën moo gën adduna bépp ak li ci biiram kon gis nga fexe ba gindi nit moom it teg ko ci yoonu njub euh, ni mu amee solo ndax yonent bi nee na ko moo gën adduna ak li gën a foor ci adduna xaddis boobu mutafaqun alayhi la hmm. ba tey jëlee nañ ci anas ibnu malik radiallahu taala anhu mu ne am na jëmm joo xam ne dafa mas a ñëw ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sallama nuyoo ba noppi ne ko man de bëgg na maa xare lool waaye nag dama amul loo xam ne mën na ma ko waaje ngir xare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ci diw moom kat waajoon na ngir xare ji waaye nag dafa tawat demal mu jox la lam waaje woon bi ñëwee ci jëmm jooju ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi lay nuyu nee na nga jox ma li nga loon ngir xare xarejee ko ginnaaw da ngaa tawat bi mu ko waxee loolu kooku doon ku dégg ndigal moom it daal di wax soxna si ne ko yaa yaa sax la ko wax xamuñu soxnaam la wala mbindaanam la daan na ko yow diw mu jigéen jëlal li nga xam ne waaje woon naa ko ngir dem ca xare ba nga jox ko jëmm ji tayit bul ci téye dara daa ko maa ngi giñ ci yàlla lépp loo ci téye du la amal njariñ du am barke jëlal lépp rek loo xam ne waajo woon ko nga jox ko jëmm ji mu dem ca xare ba ngir man damaa tawat mënatumaa dem kon gis nga xaddis boobu moom it rawaahul muslim muslim moo ko nettali kon gis nga tegtale lu baax ak xamal nit lu baax ak di ko gindi li suñu borom subhanahu wa taala di fay waaye naka noonu itam sos lu ñaaw wala tegtale lu ñaaw ba nit ñi di la ci Euh, dara àdduna jëru ko ndax suñu borom subhanahu wa taala képp ku ko def rek dana la fay sa sa sa bàkkaar yow waaye képp ku la ca toppandoo itam euh, su bàkkaaram dana la fekk yow it ci sa bàmmeel te loolu dara àdduna jëru ko kon nit ki buy sos nay sos loo xam ne lu koy jariñ la ëllëg yowmal xiyaam waaye bu mu sos mukk loo xam ne lu koy lor la kon foofu la ñuy yemale bind bi mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen bunt bi ci topp te mooy dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah